bay jaxate ba muy way ba ko naan mbàkke yaa ñu gënal suñu ndey yaa baay suñu tubaab da koo fitasu hmm. te bariwul lu ko fitasu daan na ko ko mu ne ko mu ko waaye rafet na waaye mën naa gën a rafet hmm. daan baay maa gën ci yéen seen maa gën ci yéen seen i baay mu leen mënal leen ko suñu leen ko fi ñëw daan na ko ku fi ñëw mucc nga mucc la fi waaw xam nga dafa jàng Sëñ Tuubaa mm-hmm. dafa jàng Sëñ Tuubaa te gars yi jànguñ Sëñ Tuubaa mm-hmm. gars yi ci biir suñu borom da ko da ko yebal ngir mu lijjanti ko hmm. te Moussa Sall day wax si Moussa Sall day wax naan hmm. maanaam yent bi ak Sëñ Tuubaa bokkuñu mission hmm. kii dañ koo wooteloo kii dañ koo wooteloo waaye dañ koo lijjantiloo ci biir woote bi te ku ñuy lijjantiloo dañ lay bàyyi noo ko lijjantee baax na moo tax yoon wi kenn du ko lijjanti ndax Sëñ Tuubaa day ñëw moo tax da ngay bàyyi Sëñ Tuubaa lijjanti ko moo tax murid yi képp koo gis muy dem baal noonu ci bagage la ma Mame Thierno mu ne ma murid fu mu daan ne man su ma yëgee jàng xasida su ma xëyee damay jàng daan ne waaye bu ma soxla yëg nelaw damay xam Sëñ Tuubaa dafa maa nelaw loo tey damay nelaw <laughs> waaw tasaaf man ngay nelaw ñu di la ko fay nag waaw na xamul tax hmm. ci tënk rek hmm. xabli ya fii ak hmm. wa shurbi wal manam wa xayri xayri daaka yaa rabbananam jaxanta fidri fa waxa kulli sabi jaxanta naw mi ka xiyaamil xaw mi i jaxanta ami wa sharabi yaa karim zikri wa shukru wa sababan laa yarim naa jëdi ko ko sax mi Sëñ sama naan sama nelaw dem naa sax ba ba ma woor gars yi woor sama ñàkk woor moo ëpp doole gu koor gars yi hmm? waaw te loolu loolu du Sëñ Tuubaa de loolu murid yi la hmm. maanaam faaw gars yi bàyyi ne man Mamour li ma gëm hmm. mooy Sëñ Tuubaa li ñuy wax ci ay mayam ci xasida yi moom weesu na ko weesu na ko de murid yee tax muy wax lépp loo gis ci xasida Sëñ Tuubaa naan sama may nangam yow mi koy jàng yow yow lay waxal waaye waxut ak man de lépp lu ma gis Sëñ Tuubaa ko ci xasida bu dee ay may na damaa jàpp ne man jamono ji ma koy jàng man am waaye Sëñ Tuubaa weesu na yooyu weesu na ay may sànq nee naa la ba mu demee ba ci boromam bi ko borom waxee loo bëgg waxu waxu ko ay ay daraja ak yooyu weesu na ko da gis boo gisee bu daan bind xasida daa daan def bu bu egsee ci rahman rahim da ciy def loo xam ne kenn ci yàlla mus si mus see egg suñu borom daal di koy jox rahman jox ko rahim Sëñ Tuubaa nee na damay xam ne su ma ko weesoo kenn mënta egg si fi ma ci egg si ak rahman rahim mm-hmm. nee na suñu borom daan daan di may xelal daan na ma yéen itam sama waaja daan na ma te nga ko def xasida ngir boo ko rombee boo ko fi bàyyi sa taalibe yi mën faa egsi nga xam ne kon rahman ak rahim boo ci jàppee hmm. fa sëñ Tuubaa eggoon ba mu koy bind foofu la lay yóbbu teel foofu la lay yóbbu